yàlla mooy kuy toj papp génne gàncax yi mooy kuy toj saal yi génne garab yi de li shaqil xabbi aji pepp mala ani nabaati mu génne gàncax ga war na waa mu xotti saal ba ani naxli mu génne tàndar ma war a laa wax de dana génne moom yàlla la xay aji dundu meneen mayiti ci aji dee waaw kal insaan ni ki doomu rek picc waaw insaan doomu aadama génne mais nu tufati doqal ma niyu te ma nii dafa dee doomu aadama ma ngay dund wataayiru picc yi yàlla nga ko génnee minal ci nen la génnee de te nen dafa dee rek laa wax waaye picc dafay dund yàlla mi mën a génnee aji dund ci dee mën naa dekkil doomu aadama rek laa wax waaw gannaaw bu dee ndax nen ak toqal ma niyu waaw defar ko ba muy nekk luy dund looloo gën a jafe rek laa wax de nit ku dee ba pare nga dékkidaat ko wala yàlla dana génne ku gëm yàlla ci ab kéeféer bàyyi mën naa bon doom ji ñëw baax rek laa wax de wa muxrijul mayiti muy aji génnee aji dee eh, dégg nga muy anut fatu toq ma nii wala bay di toog nen meneen xay yi aji dund yàlla i dana fekk luy dund ba pare mu daal ci génne lu dee rek laa wax kooku yàlla dana ko def fekk luy dund mu daal ci génne lu dee loolu yàlla dana ko def rek laa wax de moo tax dana fekk doomu aadama buy dund mu génne ci dégg nga waaw dégg mu def ko mujj deere dana fekk it waaw waajuru waaw baax ku gëm yàlla génne ca doom ju xees de kon yàlla génne na ji dee ca ji dundu waaye mën naa fekk it dégg nga doomu waa wala boog dégg nga waa toqam doomu aadama buy dund mu génne ci toqam mën it dafa dee wala picc muy dund mu génne ci nen te nen dafa dee rek <coughs> alhamdulilah laa wax de kon yàlla ngoogu faaliqul xabbi moo ji toj peppu wan waa ak saalu tàndarma bu leen xeeb lii lii yombut kenn mënu ko lu ma jël saalu tàndarma bi wala pepp mi toj ko génne ci gàncax gàncax woowu nga génne ci waaw pepp ca waaw wala nga génne waat ci waay waaw meññeen rek laa de kooku yàlla rek ko man tam te loolu na lu bari loolu war na kàttan ak yàlla boo xoolee garab yi rek war a dellu ci yàlla ndax garab yi seen ab cosaan dégg nga ab jiwu ndaw la woon waaw yàlla xotti ko daal di génne waaw gàncax mujj ko def ko peeru garab gu dëgër mujj ko defali bànqaas defali ko xob de ba defali ko meññal yu waaw xéeme te niroo caf nga loolu kimtaan la ci kimtaan yàlla yàlla rek man loolu kon génne naa caaji dee génne naa ji dee mu jugee caaji dundu zaalikumul faaliqu kooku dee aji xotti jiw yi almuxriju koy génne gàncaxe allahuma di yàlla yàlla rek def loolu fa naa tuufa koona kon naka lañ leen di tourné walis gëm yàlla kimtaan gu mag gi nak ngeen di moom te gëmu leen borom bi rek laa wax de fa kayfa tusrafuuna kaaw teef naka lañ leen di anil imani waris gëm yàlla ya maa qiyaamil baraay naan nag taxaw ak lay lay weex tal yaa ngi nii ngeen di janoog moom waaw su ngeen gëmul rek waaw da ngeen xees waaw waaye lay yaa ngi nii moo tax ma ne gëm yàlla ya ci loxoom yàlla ya la nekk ci ndogalam ak kàttanam mooy xol ku ko neex la waaye wala kim lu lay waral ni di gëm yàlla rek laa wax bu doon lay tax a gëm yàlla koroon nit du weddi yonent bi di jaamuy doj xeer wi nga xam ne defut dindiwut jariñul lorewut amul plan bu mu tëral amul xel amul tus boo ko doon jaamu junni atit di wax ak moom fam na dégg na naan dégg mun laa tontu waaw xeer wu manqué noonu ku dem ba mën koo gëm weddi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu mat mi nga xam ne loolu mbiram yàlla rek la waaye bu doon xelam doomu aadama rek du def loolu yàlla na yàlla may gëm nag faale qul isbaahi yàlla mu aji xotti kenn suba saaqin aji xotti la moo da suufi kenn ak suba nga jaayu layli mu aji def guddi sakanan mu rik dal rek laa wax de waaw ayes kunu dana dalee fii ci moom alxalqu bindee fi mi ne temps bi ci coona bu ñëpp sonnee buñ tëddee rek waaw daal di noppaliku waaw bu suba teel jotee nag waaw ñuy liggéey waat ba sonnaat rek laa wax de yàlla mi leen may guddi muy noppalukaay ñeel leen ngeen di ci dalee wala ci njàqare waaw sant leen borom boobu rek laa wax de yàlla rek def loolu wa shamsa moo def jant wal qamar ak weer usbaanan ci ab takk maanaam jant bi dafay daw ci ay xeer ak ay liim yuñ mën a takk loolu dana war ngeen xam weer xam at yi waaw xam dund yi ñaata fan la xam xew-xew yi kañ la woon yàllaa leen defal jant beeg weer wi ñu di lu ñuy takk waaw yi jëriyaan ñuy daw bi xusbaanin baaga dañ koo daggane waaye bi xusbaanin moo doon cosaan li ci ak liim jant bi léppam dañ ko liim weer wi léppam dañ koo liim loolu tax na ngeen xàmme weereekat yi waaw ay ta xàq baani ñuy wutuwante yàlla def loolu rek la xax de dañuy daw ci liim waaw ci wutuwante rek de waaw bu guddi jotee rek weer wi feeñ bu bëccëg jotee jent bi feeñ de waaw weer wi daw fanweer yi waaw ñaar fukki fan ak juróom-ñeent waaw wala fanweer daal di suux waaw weer am de waaw yàlla mi leen defal loolu guddeeg bëccëg di wante ba ngeen mën a xam fan mën a xam semaine mën a xam weer mën a xam at sant leen yàlla moom rek laa wala yàlla leen defal loolu zalikal mazkur loolu ñu tudd taqdirul aziz yi mooy na tere yàlla mi aji not fi mulki ci nguuram alalimi ka aji xam bi xalqi jëfam de lii lépp yàllaa ko bind moom mi nga xam ne mooy ki not ci nguuram mooy ki xam mbindeefam yi moom yàlla moo leen xam kon buur ne nañ ko sant moom mi nga xam ne moo génne doomu aadama ak picc ci toq mën yoog nen génneen dégg nga toq man yoog nen ci doomu aadama génne na lu kenn xamut ak dundam ci lu dee ci luy dund génne lu dee ci luy dund yàlla moom ne nañ ko sant mu ne borom boobu mooy kan mu ne moo leen andil suba lëndëm tërës mu xëy xëy rek andil leen suba ngeen mën a faj soxla yi nga ne ko lëndëm gi nag mooy lëndëm gi yàlla ko bind ngeen man seen noppalu ki leen defal xewal googu kooku kay mooy borom bi yelloo jaamu rek laa wax de waaw defal leen jant bi ak weer wi ngeen xam waaw waxtu xaj yi waxtu julli ngeen mën a xam dégg nga rek laa wax de waxtu yi ngeen yi waaw liggéey yi ak yi ngeen wàcce ak wan yeen waxtu ngeen war a fayante seen liggéey yi waaw yàlla mi defal bis yooyu dégg nga def ko ci ay takk ak liim ba dara humpur leen سنترين برم بوفر لا عليك كوكور يالا هو الذي ما يبور بنا خمنا جان لفنا لكم يالا نجوم بدوي يتحضر وانجن انجن لكو بيالتي موم في ظلمات البر چلن مجيري جي والبحر اجي جي منا في الاسفار جتوكي يالا بنا بدوي جن من تيقول منا قم بنكو قرفو وا كون قم قم بدوي غوغو القرآن هاي وركم هاي وتشلين قمنا دانا منا وان واللي رك لا kon buñ demee ci tukki géej gi lëndëm wala guddi jot waa boo xoolee ci biddiw yi da nga mën a xam fa nga war a jublu waa yàlla mi leen defal loolu nag sant leen ko ngeen gërëm ko xad fasal naa leeral nañ bayeen naa leeral nañ al ayaati tegtal yi wane suñ kattan nañ ñun rek ñoo ñoo di yàlla addalaati tegtal yàlla qudrati naa suñ kattan li xaw moo na ñu xam xam ñëpp xam yàlla rek man yi ñu tudd moom rek a man génne toqam ma nuyu ak ak nen ci doomu adama ak ci njanaaw yàlla rek a man génne doom aadama ak njanaaw ci toqam ma nuyu ak nen de yàlla man loolu ana ku ko mën na def kenn mënu ko yàlla rek moo mën a andi suba teel bu ko kenn mënu ko guddi jotee daal borom xam-xam yëpp ñu ngay tëddi nelaw di xaar rek waaw yàlla di këg waaw leer ak subaam bis bu di kur kenn mënu ci dara xam nga ne loolu yàlla rekk ko dogal moo ko bind yàlla mooy bind guddi ñu di ci noppalu dëgg-dëgg ku man loolu xamut waaw yàlla moo def jant be weer yi wutu wante daw ci ay furuk waaw ngeen mën a xam bis yi waaw heure yi semaine yi waaw weer at yi rek de yooyu yëpp mbir la yoo xam ne yàlla ko def leen biddiw biddiw kenn bindu ko yàlla bu ngeen di tukki bam mu lëndëm wala ngeen jaxasoo ci géej yi bu ngeen xoolee ci biddiw rek xam fu ngeen war a jaar yàlla mi leen loolu waaw dëgg dëgg waaw leer lal na leen nag ne moom rek mooy borom kàttan moom rek man nag loolu muy jëriñ ñu xam ko moo ñu jaamu ko rek de kon lay leer nag gëm rek mbaa di ci fetur loo fi des waxuma sax lii waaye àddina lépp waxuma sax àddina waaye mbindeef yëpp amul kenn ci mos bind lu toll ni mbagam yoo amul te nag ñun ñëpp xam nañ ne lu sosu rek dafa am lu ko sos te amut ku sos lu toll ni mbëggam yoo ba yàlla bindee ba tey rek laa de li gën a yéeme ci li defar ci jamono ji na ci avion defuñ lu may jël rek matière première yi nga xam ne yàllaa ko defar boole ko daal di am avion mbindam yàlla rek lañ jël dajale ba am avion ñooñu kat dañoo kole waaw moo di feewaat ku daal eh, dañoo kole dara rek waaye sosuñ sos mooy lu xamut musul am nga créé ko mu daal di am loolu yàlla rek ko man dégg nga tabax yi ñuy tabax ak dëkkuwaay yi suuf si yàlla ci ak ndoxam mi moom lañ jël daal di dajale waaw boole boole ba am dëkkuwaay demit loolu laal rekk balaa ñu koo defar dañuy dem jël yàlla defar ba pare boole waaw ak yeneen door am leneen de loolu nag yàllaa ñu may loolu sax xam-xam bu ñu defaree loolu yàllaa ñu ko may waaye boo xoolee ba léegi egguñ ci mbind mbind mooy sos lu musul am doomu aadama musul am nga ñëw rek ne ko nekkal mu nekk loolu yàllaa ko man dégg suuf musul nekk ki nekkal suuf asamaan musul nekk ki nekkal asamaan jaww musul nekk ki nekkal jaww de mindeef si cosaan musul am ki amal mindeef dëgg-dëgg kooku mooy borom bi subhanahu wa taala rek moom la war a jaamu kooku rek moo bind ku dul moom bindu rek laa wax de waa moo tax dund ba pare di weddi yàlla waa kooku borom xel waru koo def bu weddee rek xëy na ndogal ndogal ko jiitu waaye borom xel daal amul fu mu sukkandiku bu weddi yàlla buur a ngay lim ay kimtaanam mu ne wallazi mooy buur bi nga xam ne anshaakum sos na leen xalaqakum bind na leen min nafsin waahidatin ci benn bakkan yàllaa leen bind yéen ñëpp ci benn bakkan bakkan boobu mu jëlee ko ci suuf xam nga ne kawteefa ngoogu suuf si nga xam ne dundut waa nga jël ko dégg nga rek de rof caf roxo roxo yàlla rek ko mën a bind ba léegi àddina yëpp buñ dajewoon gën a fonk daal di dee waaw tële ñoom ñëpp ci del roxo ci moom dëgg-dëgg ñooñu xam nga ne bu waaw ñoo créé li nga gis danañ mën a defar roo waaye dañ leen bind moo tax leen bind bu leen bëggee rey mënuñ ci dara de borom xam-xame àdduna yi gën a mag ñoom ñëpp buñ daje kiñ gën a fonk ci àdduna mënuñ ci lu mooy waa waaw ñooñu am na ku leen yirif de rek lañ ci mën a naqarlu waaye daal roxo gi mënuñ ko cee delloo moom yàlla moomu nag moo bind roxo jël roxo nag def ko ci ban waaw mu nekk yàpp ak deret waaw di yëg waaw dëgg-dëgg loolu mbind mu kimtaan la yàlla rek man loolu yéen nag mu jël leen bindee leen ci roxo googu euh, ci jëmm jooju mu di aadama waaw dégg nga toqab man ni ci aadama moo sos waaw doomam ya ñoom doomam ya dégg nga lañ lekk si suuf gàncax gañ lekk moom la yàlla jël def ko muy toqab man yu moo sosaat seen i doom ba mee yàlla rek noonu lay demee kon ba léegi doomu aadama ngi jugee ci suuf ndax doomu aadama dafay jugee ci gàncax gi nga xam ne nii waaw dañ koo ji ci suuf waaw gàncax googu lay lekk bu ko lekkee mu def ci moom toqam man yoon man nii moom nag waaw mooy jur doom aadama juru ko sax ci deret ndax man nii dana ko def dana ko def nu moom deret lu moom dëran mu def ko suux def ko waa defal ko yàq waa defal ko yàqum bind ko bind mu yéemee taral ko nopp ak bakkan waaw wutal ko gémmiñ ak waaw loxo ak tànk ak biir waaw wutal ko toogukaay waaw ak génneekaay sobe waaw ak turukaay ndox waaw dégg rek de aw rab bu muy jotee ba mën a am doom nga bind mu yéeme moomu xam nga ne loolu du hasard rek laa wax de te kenn mënul wax ne moo defar lii ci àddina loolu yàlla ko defar loolu du hasard jant bu yéeme bii saa yu xëyee fu muy xëyee lay xëyee topp ndigal waaw ba so jot mu so waaw may guddi gi nag mu ñëw waaw weeroo fenk biddu yee fenk waaw nit nekk ci dal ma ne mbind mu yéeme moomu waaw nga xam ne ku ñëw fekk ko ku dem ba ko fi waaw du hasard waaw xamul noonu rek de ko ki ko na ko wër yàlla yàlla moom nag ku leen jegele moom sorewul nag moom wallazi mooy buur bi nga xam ne ansaakum bind na leen xalaqakum bind na leen min nafsin waahidatin ci benn bakkan mu di aadama fa am na ci yéen mustaqarun aji sax ci roxamu jigéen minkum fa mustaqarun am na aji sax minkum ci yéen fi raxmi fi raximi ci biirab jigéen wa mustawdawun am na luñ dénk minkum ci yéen fi sulbi ci ndigal doomu aadama ndigal góor kon doom dégg nga yàllaa ko dénkaane ci ndigal góor waaye nag foofu du dëkk waayam nit daal waaw lay cosaanam loolu lay dëkk waayam te du mos a génn nag waaw waaye dana jaar danañ ko dénk ay barab yu bëri mujj nañ ko dénk xaalamu arwa mu def roxo ma ngay rañaan rek di dem rek de ci cosaan daal am fu mu tàmbalee am fu mu yem rek yàlla bind na ko def ko roxo dénk ko xaalamu mu nekk fa la soob yàlla def ko suuf nekk na fa na soob yàlla dégg nga yàlla daf ko muy jëmmi aadama mboolem roxo yëpp yàlla dénk ko yàlla mboolem doomu aadama yëpp yàlla dénk leen digal aadama moom de waaw nekk nañ foofu la soob yàlla génn nit ki bu génnee ca doomu aadama boobu dem ci biiru jigéen ñu dénk ko fa mu sax foofu nag dal nekk fa la soob yàlla di génn nag caadi na si de waaw nekkab liir la soob yàlla noonu lay continuer bay waxambaane bu dëgër waaw di tukki rek dem ba màggat noonu lay demee waaw ba dee dal di ñëw ñu dénkaat ko suuf la soob bu waxtu jotee ñu daal ko dekkil mu taxaw ci pencam yàlla waaw yàlla te ko ba pare dénk ko aljana wala sawara la soob yàlla noonu rek de waaw ba waaw lépp di dellu ci borom bi rek laa wax de kon doomu ci tukki nekk rek kat fasal naa teqal nañu laayaati kawte bi wane suñ kattan waaye ñan li xaw mi ñeel nit yëf xaw ñu dégg de ñu dégg daal ñu mën a dégg lii amaa ñu déggut mënuñu am benn xam-xam ci li ñuy wax waaye ñuy dégg nag moom waa wax ji la gàtt na lool waaye danañ ci jàngee waaw ne yàlla rek mooy kenn mu ne war a jaamu jàngee si xam-xam yu bëri de yàlla yàlla boole ci way dégg yi wowal la mooy buur bi nga xam ne an sana wàccee na mina samaay tukkee ci asamaan maan taw faaxraj naa ñu dal di génnee loolu moo di iltifaat fii nekk si iltifaatun gerto anil xaybati ci faddu daf ne moom mooy ki ndox ci asamaan ba fay ne génne nañ dégg waa daf ne wax ne mu génne rek laa wax de waaye daf ne ñu ko rab dana ni kuy wax ku fi nekkut ba ci kanam rek mu ñëw du mel ni moom daal di taxawal boppam nag faax rek naa ñu génne bii seen taw boobu ay bil maa ci ndoxam taw nabaata kulli seen gàncax ak lépp lëf rek laa wax de loo gis rek hmm, dégg def nañ ko gàncax waaw yàlla ngi wax kii maanaam ba léegi faaxañ naa génn nañ minu ci gàncax googu xadiran aji waaw na tax aji tooy seen mbir axdar bu daal bu naat ñu génnee nag ca gàncax googu lu naat mu rafet loolu nuxruju danañu génne minu ci aji naat jooju minal xudri ci way naat ya xabban pepp mutaraakiban baaji rankaloo teglante leen li ci kaw leen li yarka bu dana war yarka bu dana war baadu wa leen li baadu leen li kasanaa biril hintani ki gubbi basi rek laa wax de dégg nga mm, pepp yi dafay teglante wa min an naxli ak ci tàndarma yi min taliyaa si njëlbeen ak fenkam yaa awalu maa yaxaju njëlbeenu la dana génn mina ci moom xilwaanu murit cëgg arajiinun mooy cëggi tàndarma yi mooy pas-pasi tàndarma yi nga xam ne waaw fa la mañ mën nekk rek laa wax de daaneetun yaa ji jëgg de yàlla génne ci <clears throat> tàndarma la cee njëkk a fekk ay cëgg waaw yu jege xarib yu jege baax du leen lemin baax dañ ci leen li waax nañ naa génn nañ jënnaatin ay tool basaatin ay tool waaw min anaabin yi maam yi yaa moom resin la wa zaytuna yi zaytun la wa rummaana yi garenaan la مشتبها ينرو أي قب ورقه ما سن قب ينرو وغير متشابه وينرو من يت سمراس من ينرو نك وانظروا قلن يا مخاطبين يني وحد نظر اعتبار قول قلم إلى سمره إيجم من ينما إذا أسمر بمجك مني أول ما يبدو لنجك فين قلن كيف هو نمل ويني أقبن يري nag ji bu demee ba ñor ba neex xool leen mi mel de ndax inna fi daalikum naka nekk na ci loolu la ayaatin ay kaawteef yu wane kàttan ak yàlla dara laati wane ala qudrati yi ci kàttanam ñu xaw mi ñeen ñi ñu way gëm gàncax yàlla ngi ci dox misaal yu bëri bëri bëri bëri ndax gàncax gi waaw kimtaan yu bëri ci de ana yan misaal ñoo nekk ci gàncax gàncax lu ndaw la yàlla wàccee ndox mu jóge ci asamaan taw boobu jóge ci asamaan daldi di dekkil gàncax ga génne ci ay xob yu nooy te nooy rafet lool xob di màgg waaw ba génne meññet meññeen mi fa muy feeñ bees naq dafa naqari neexul a lekk mën naa forox mën naa mel nu ne waaye bu demee ba ñor daldi neex lool ñu mën koo jëriñu te loolu lépp du dara lu may jiw wa nga suuloon rek moo moo nekk nii jiw yi génne na gàncax gi génne na pol yi génne na waaw dégg nga meññeen maag la meññeen ma nekk génnee xob génne mbir yu bari yoo xam ne lépp ngi laxasoon ci biiram waaw yàlla génne ko rek ci kattanam rek laa wax de lenn daa feeñal lu bari loolu lépp fii mu forax fii fii mu neex fii fii ñu mën koo jëriñoo fii mën koo jëriñoo waaw yàlla mi def loolu kooku kay mooy borom kattan rek laa wax de wajaalu def nañ lillaahi ñeel yàlla shuraka way bokkaale al jinnata mooy jinne yi jël nañ jinne yi nag waa di jaamu di ko bokkaale yàlla ay su ataawum bañ toppee jinne yi te jinne kat ku ne xam na ne waaw jaam yàlla waaye du yàlla wa xalaqahum te yàlla bind jinne yi ay waqat xalaqahum te bind na leen yàlla mi bind jinne yi bind kawteef yi ma wax yëpp kooku lañ war a jaamu waaye banañ ko mën a di jaamu jinne ba léegi rek doomu aadama yaa ngi puugaroo xamante ginne yi wala jëflante ginne yi mel ni ginne yi ñoo yore ndogal yàlla yi ginne yi ay jaam lañ de waxaraqoo fent nañ ixtaraqoo fent nañ la woñeel yàlla bani na doom yu góor wa banaati doom yu jigéen bi xëyri naan min ci loolu xam-xam yàlla la xaalu ay su xaalu ba ñu waxee ne Useyru Useyru ibnu Laay doomu yàlla kooku góor la waxuñ dëgg waaw ñee saa bool nañ ko ci doom yàlla yi yàlla doom waaw wal malaayikatu malaaka yi ñu ne ay jigéen lañ waaye banaatu laay doom yàlla lañ ñu ne malaaka yàlla lañ jur waaye ay jigéen lañ dañuy nar boo ne subhaanahu tudd na ma sellam maa ngi sellal la ñeel ko wa taala jomm naa maay si boona ci lañ koy melal de jëf ju bon ak melo yu bon yooyu ñuy wax di ko askane yàlla yàlla jomm na di am doom naka la yàlla di doom koo xam ne nekk nga ci jamono joo xam ne dara nekkul ak yow lu toll ni mbaggam yow xamut yow rek yaa fa nekk du espace du jëmm dara lu mën a nekk ak yow ana kooku nu muy amee doom xam nga ne jomb na muy am bokkaale jomb mu am doom yàlla koo xam xam ne doom dafa jomb ci moom waaye bokkaale dafa jomb ci moom ana lu tax nga mën a doom ak ana doom doom mooy dogit bi nga xam ne génnee na ci yow waaw kooku dogit la ci yow ana lu tax nag mu mën a génnee ci yow da nga nekk ci barab waris barab waaye yàlla moom amut barab waris barab de yow mi nga xam ne am na barab boo nekkul léegi fa nga nekkul nag boo génn looloo waral nag nga mën a génne dara ci yow waaw waaye bu doon yow moom rek yaa nekk xanaa ah, mën a génne dara fu muy nekk ak fu muy génnee waaye ndem yow am nekk nga fi leneen nang fi yow moom dara mën naa génnee ci yow dara mën naa jaayee ci yow génnee ci yow ndax yow rek yaa fi ne waaye yàlla mi nga xam ne nekk na ca coy dara nekkul woon ak moom ana kooku nu mu amee doom kooku xam nga doom jomb na ci moom ana kooku nu mu mën a amee bokkaale waaw kooku bokkaale jomb na ci moom moo tax ñaari yàlla dafa jomb mu am subhaana tudd na ma sell ma tanti ànd aji selloo ñeel ko wa taala jommu naa maa ngi si fuuna ci dañ koy melal rek laa wax de yàlla melo yu bon yi nga xam ne ñu ngi koy melal kooku dafa jomm ci moom rek mënu nekk waaw doom it ku lottu ko soxla yàlla lottul bay soxla doom badion samawaati maa ji fent asamaan yi juróom-ñaar wala deg suufi juróom-ñaar moom démom ma moo leen fent ci dul misaal bu jiitu yàlla ci dara dafa xëy xëy rek amal asamaan ak suuf day xëy nag waxin la waaye yàlla moom xëy ngoon amut moo bind lépp bind asamaan ak suuf buur bi moom asamaan moom suuf buur bi moom nguur yi buur bi moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bu moom way njëkk ak way mujj buur boobu góorgóorlu ba xaritoog moom moo gën xaritoog leneen annaa yakoonu naka la nekkee law di ko ñeel wala dun doom walam takkun ta nekkul loo ñeel ko saahibatun soxna muy jabar yàlla mi soxla wut jabar amul jabar yàlla moom nag lay amee doom rek laa waaw yàlla mënul am doom jabar kon du am doom wa xalaqa bind na kulla shay'in lépp lëf waaw boobay tontu réy ba nag waaw min shaani bokk na ci mbiram an yaxluqu mu bind lépp lëf de woo moom yàlla moomu ali mun aji xam la mu bi kulli shay'in ci lépp lëf nag tontu bu sew a ngi fii nag naka la yàlla di amee doom taamul jabar rek laa wax de xam ngeen ne lay baax mooy balaa lenn di am doom mu am jabar waaw jabar jaa koy jural doom yàlla nag mi amul jabar moom far kooku xam nga ne soxlawul doom ndax bu soxlawoon doom dana sàkk jabar du ñàkk ku ne waaw mën naa bind doom rek saa jabar ndax bind na fi waaw te jaarewut ci jigéen kon mën naa bind doom saa jafar comme ni def aadama rek de mu ne déedéet lu tax loolu mun nekk mooy wa xalaqa kulli shay'in te bind na lu ne du ñàkk jabar gi rek mooy la ne yàlla mun na am doom loolu misaal la ci yàlla amul jabar kon amul doom waaye moo bind lépp kon mënul am doom anda li loolu ku bind lépp mooy koo xam ne nekk na te dara nekkul woon rek laa wax de su fekkoon ne xam na jamono boo xam ne espace bu toll ni mbagg yow mu ngi nekk ak yàlla ba yàlla di bind foofu la jëlee bind ah su boobaa nag loolu yàlla bind ko moom ndax loolu moog yàlla ñoo fi nekk ndoor waaye bu yàlla ne bind moo bind lépp rek daf laa bëgg a jàngal moom rek moo fi nekkoon waaw dara nekkul fi woon moom lu toll ni mbagg yoo lu toll ni waaw wala a tuuti ni mbagg yoo lu toll ni sànq lañ xamul woon moom rek moo am te lu yëpp mooy ki ko feeñal waaw ku mel noonu nu muy amee doom mooy la nag ki bind lépp xam nga ne xam na lépp yow rek yaa fi nekk lu xam yaa ko bind yaa ko sos kooku dara mënu ko puum ndax lépp moo ko tëral de moo tax xam gi yàlla xam lépp kooku xemewut waaye yàlla mënu am doom ndax moo bind lépp rek wax de waaw ku bind lépp naka la mën a e doom wala nga ne bu dee na doom xanaa léppay e doom ndax moo bind lépp loo mën a gis ak mbindeefam la waaw bu mu sof waaw soo tànnee lenn ci mbindeef bi ne doomi yàlla la waxal ne yeneen i doomi yàlla dañu yàlla soxla wu doom rek laa de daalikum kooku allah moo di yàlla rabbukum mooy seen borom kii ma wax nii nga xam ne moo bind lépp ba muy am dara amul woon ak moom amul jabar soxlawut ko amul doom mooy defar asamaan ak suuf moo xam lépp kooku yàlla mooy seen borom mooy rabbuku mooy seen borom ah am nañ borom bu màgg nag laa ilaahu benn buur ñu war a jaamu illaahu lu mooy moom xaaliqu kulli shay'in mooy bind lépp lu nekk de moom rek mooy ki nga xam ne loo gis moo ko bind waaw yàlla bind lépp rek doo na jës bu waaw fu nit ki yegg ci boromam waaw waaye mu ngi noonu daal ko yàlla na mu jub daal du jub fam bu du leen ko waxi doo wéetal leen ko rek laa wow moom yàlla moomu wakiilun aji wattu la wa aji wattu la ala kulli shay'in ci lépp lu nekk de wakiilun mooy xafiisun aji wattu la lu ne rek yàlla koy wattu rek laa den laa tudrikoo du ko peeg arabu saadu bëri ñu ne laa taraaw du ko gis waaye firiwul loolu ndax li dara ku jot xayru yéti du gis yara dana gis al insaan doomu aadama shay'an dara wala yudrikoo te peegut ko ñëwal Dakar rek dana gis Dakar waaye peegoo Dakar nag na na foo alabusaara bët yi yaraaha dana gis lépp way duru ki a mu feeg lépp de kama naana moom comme nañ ko xamee wala nu duru ko waaye ñun jotuñ ko ñoom yàlla waaw naraaw mën nañ koo gis gaa waaye wala nu ko duñ ko jot woo moom yàlla allatifu mu aji ñeewenti baawli ay ci ay wali yoom alxabir mu aji dañ ci ñoom rek laa wax de yàlla ñu bokk ci wali yooyu xad jaakum dikkal basaayiroo lay hujjajun lay yu weex tàll yu weene wet ak yàlla min rabbikum tukkee seen borom fa man abu sara ku gis lay yooyu ay man abu sara ku gis lay yooyu fa amana mu gëm fa li nafsi yi ñeel na boppam maanaam tiyaabaaf ci moom lay dellu waaw dégg nga abu sara ka nga xam ne gis na kooku tiyaaba gisam gi ci moom lay dellu leen na sawaaba yi saar yi ndax tiyaaba gisam gi law ñeel na ko rek de bu mën am yee ku gumba xanaa waris la yooyu faddal la mu réer faale yaa bakkaar bi war na ko ay wabaalu idlaalihi musiba ak réeram googu ci kawam lay dellu ki gis lay yi daal di gëm tiyaaba gi moom moo dundu ci moom lay dellu waaye ku gisul lay mel ni ku gumba weddi yàlla bakkaar ba ci kawam lay daanu de yonentu ne wama ana den man bi xafisin di aji foglu aleykum ci yéen de raqibu nekkuma aji foglu li amaalekum seen jëf yi innama ana naka man nazirun aji waare laa yonentu ne man damay waare rek waaye yàlla moom mooy ki leen di foglu waaw te dana leen fay wa kazalika comme niñ leeralee lañ tudd léegi kama bayan naa comme niñ leeralee maa zukira lañ tudd nu sarifu la ñuy leeralee nu bëri la ñuy leeralee alaayaati kawteef yi wane suñu kàttan li yantabiru ngir ñu xalam wala yaqulu ngir ñu waxal kufaar yi fi aqibati am ni ci mbir mi ne darasta yow mi la jàng nga waaw danañ indi kawteef mu de alquran wax nañ la kawteef yi waaw mooy peeb yàlla ba dégg moo tax léeg-léegi kawteef yi yàlla wane la ko ci xala gi ma la goon asamaan yàlla wanee la ko ci jant yàlla wanee la ko ci suuf léeg-léeg yàlla wanee la ko ci guddi léeg-léeg yàlla wanee la ko ci bëccëg kon xam nga lan moo di fi yàlla bi dara génn ko ka mm-hmm. moom la yàlla waxaa sunurihim ayatina fi lafaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaqu yàlla dana leen wan kawte fi ci gox yi ah, ak seeni bopp waa ba mu wóor leen ne yàlla rek moo di dëgg de dégg nga kon pour nga egg ci xàq boobu foog nga xool ci kawteef yi kawteef yi nag moo di péeb yàlla ba péeb yàlla bi nag dara génnul ko rek laa de waa nag waa ñu ko yàlla may ko mën a xam dégg nga niñ leeralee lii ñu tudd léegi noonu la ñuy continuer rek di leeral kawteef yi ngir nit ñi xalam waaye biir ñoom booy leeral kawteef yàlla ñu ne yow da ngaa jàng rek yow yonent bi li ngay wax nii xam nga ne lii ku jàng ko mën a wax xanaa te jàng nga kutubal madina téere bay passé téere way njëkk yi moom nga jàng waaw ñoom loolu la ñuy wax wal nu bayyinoo danañu leeral ko li xaw mi ñeel nit yàlla moo na ñu xam kawteef yooyu dañ ko leeral ñu xam ku xam yàlla xam ne moom rek dégg nga mooy ki am am ak dëgg buur boobu kenn mënu koo nax ne moo la yónni waaw sa di ree ni mbiram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dëgg laa lu gën a set lislaam nit gisul ko lu gën a jaaxal lislaam ci noonu yàlla yi nit gisul ko ci kaw suuf waaw loolu dafay wane rek ne waaw yàlla mi nga xam ne mosu fee jug moo yónni yonentu moo tam mbiram di di kawe su nekk rek laa yëpp buñ dajee mënuñ koo si waaw yàlla feeñal ne ñoo ci gën a néew doole xëy sax wala ngontu noonu yàlla yi ñoom nag ñoo yore alal ju bëri ji ñoo yore ngandaay yi dégg nga ñoo yore mbooloo yi sarti combat yi ak mboolem yi xalak àddina ñoom ñoo ko yore waaye saa su nekk ña ngi ragal jullit ñi ñemewuñ leen sax xool waaw bët bu dëgër waaw ñemewuñ leen a dara saa su nekk ñu leen bàyyi xel xam nga ne ñooñu am na keneen ku leen aar lu mooy borom bi waaw lañ nekk ci dëgg na moo tax mu aare leen loolu la wax de la bon bon yàlla aar na leen ba noon yàlla yi mënu ci ñoom dara di nekk nag jullit ñi ñu bëri wàcc na ñoon yonent bi nekk ci yoon mu bon waaye teewul yàlla ngi leen suturaal de dañoo nekk ci dëgg rek la wax de mooy topp dina yonent bi wala nu béy noo danañu leeral kaw teef ya li xaw mi ñeel nit ña yàlla mën a yooyu danañ xam de itamit toppal maa waxee la waayeef nañu lekk ñun ci yow mi rabbika mu tukkee sa borom moo di alquran de yow daal toppal alquran mooy wax yu ko jugee ci yàlla ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa ilaaha mu benn bur ñu war a jaamu illaa lu mooy moom yàlla waari dëddul nag anil mushrikiina ci way bokkaale yi bokkaale kat yi wan leen gannaaw walaw shaa Allah bu soo woon yàlla maa shirku bokkaale wuñ ñooñu di bokkaale bu neexoon yàlla duñ bokkaale waaw waaye lan mu ci ñoom loolu wama jaal laa ko defuñ alayhim ci ñoom xafizan aji wama jaal naa ko defuñ laa alayhim seen kaw xafizan nga aji fuglu ay raqiban nga aji fuglu di xool lañu war a def ak lañu war def dal seen kaw ak nangam yàlla sant loolu nag yow bàyyi leen rek lañ nekk yàlla koy fay wama anta def yow bi wakkil nga aji mbëru alayhim seen kaw fatu fatu dirum ba nga leen di forcé al imaan ci yàlla ga gannaaw ko ne nañ ko mu xeex bu ne wala tasubbu bu leen saaga allazina gaa ñi nga xam ne yad'una danañu jaamu min duunillaahi ci dul yàlla de ndax fay subu danañu saaga laa yalaatu woon ci noonu saaga xërëm yi ŋàññi xërëm yi jaamu yàlla la ndax xërëm du tus te bokkaal nañ kooku yàlla kon jar naa ŋàññi waaye bu dee boo ŋàññee xërëm yi mu andi lu gën bon loolu maanaam mu andi mbir mu bon te moo di ŋàññi yàlla soo baa haram na de kon top yalla go meuna gis bu re da fay yi jeme ci mo yalla go xam ni waaw mo gën a ba top yalla go su top yalla go mo yalla ni mu ci don de nazar wàcc na fi jamaatin ci mbolo sabbo ngani na nañu ras naa ma fa sabbo mu ŋañal ku faar yi firal moola yàlla jël wala màgg na cey ana lan moo di ci kanam borom bi de qaala taala yàlla ne wala tasubbu ba leen ŋàññi allazina ñi nga xam ne yedoon danañ jaamu min duunillahi ci lu yàlla mooy asnaama xërëm yi fa yasubbu kon ñoom danañ ŋàññi allah yàlla aduwan cig noono ay antidaan cig jàggati wa zulmun ak tooñ bi xëy min ci lu xam-xam danañ ŋàññi yàlla ci lu dul waaw xam-xam deg laa wax de ndax xamuñ yàlla buñ ko xamoon duñ ko ŋàññi de fa ala haza boo sukkandikoo ci lii kullu taatin bépp topp yàlla te juru dina xëcc ilaa maasiyatin ci mooy yàlla goo xam ne moo gën a bon fu bàyyi topp yàlla googu fa yee xamal ne topp yàlla googu maasiyatun mooy yàlla la de bu dee daal topp yàlla gi boo defee moo ni mooy yàlla goo xam ne mooy googu moo gën a garaaw sax ba topp yàlla googu su boobaa jëmmi topp yàlla googu mooy yàlla lay mujj doon laa na sabal asnaami ndax saaga nga ŋàññi xerem yi ibadatun jaamu yàlla la walakin waaye nag la maa jëra ba mu xëccee nit ñi ilaa sabillaahi jëm ci ngañ yàlla mu ne woo oo teref nañ leen min zalika ci loolu de ba nga xamee dafay waral ngañ yàlla moo tax ñu aay leen ko kazalika nag noonu zayen naa taaral nañu li kulli ummati ñeel bépp xeet amalum seen jëf min al ci lu baax wa sharri ak ay xeet wu nekk rek yàlla taaral na ko seen jëf gis nga groupe yu bon ya lu bon ay rafet ci ñoom ñu baax ñi lu baax lu rafet lu baaxee lu rafet ñoom ndax xeet wu nekk la na mu ci la bëgg ñu jëf moo tax dafa koy taar daf leen koy taaralal yàlla yàlla taaralal ñu njub summa ila rabbihim topp jëm seen borom marjihum moo di seen delluwaay fa yu nabbiwum dana mu xibaar leen bi maa kaanoo ci lañ nekkoon yaa ma noonu doon ko def fa yu jaasim te mu fay leen ko de yéen ñëpp ci yàlla ngeen di dellu lépp la ngeen doon def dana leen ko xibaar dana leen ko fay rek laa wax de waaw waa samoo gëñ nañ ñoom ku faaru makka billaahi ki yàlla jaxda aymaanim seen doyam ngëñ ne la in jaatum dem dikkal ne leen benn kawteef mi maxtaroo ci lañ sàkku la yuminun na danañu gëm bi aa ci kawteef de ñu ngay gën seen kémtalaay kattan ne bu kawteef ñëwee danañ gëm waxuñ dëgg xul waxal ina man ayatu naka kawteef yi inda laay ma nga fa yàlla yàlla koy wàcce saa yu ko neexee rek laa de wa maa yushrikum ana lak yëgal ne anna na kawte fi isa jaa nam dikk na laa yuminuun duñ gëm ana lan moo leen xamal ne bu kawte fi ñëwee duñ gëm maanaam kawte fi bu ñëwee man nañoo ñàkk gëm waa te buñ gëmut waaw yàlla la xeet wi yëpp yàlla du wàcce mukk kawte fi ci caaxaan de li yàlla wàccee si kawte fi ci yonentu bëri na waaye mooy toog bam soob ko rek mu wàccee ko ci yonentu bi sallallahu alayhi wa bu xeet gëmut su boobaa duñ alkum waaw waaye boo laajee jëmmi kawteef sàngam ne defal sàngam buñ ko defee boo gëmul rek waaw yàlla ala xeer ah, yëpp de xeebéri màkk yi nag laaj na yonentu waaw ne ko ne indi kawteef yonent bi waaw xotti weer wa waaye la tax xalaguñ xeet bi yëpp mooy ñoom dañoo laaj kawteef rek waaw yonentu xotti weer wa waaye gëmuñ waaw waaye buñ laajoon kawteef sàngam bii rek lañ bëgg wàcce lii yonentu yàlla wàccee loolu gëmuñ dañuy xalku rek de tuuba xeet wi xalku na yàlla nag du xal xeet wi da sabaqa jiit na fel mi laay ci xam-xam yàlla annahum nañu ma xifiri laa yumi noonu duñ gëm moo tax yàlla ne leen ana du leen yëgal ne kawteef bu ñëwee du ngeen ko gëm maanaam yàlla xam na ne yéen du ngeen gëm kon du wàccee kawteef di ngeen sàkku mën naa wàccee kawteef ku ko soob nag laa wax de wanu xalibu danañu jàllal bi afidatum seeni xol naxulu danañ wëlbati xulóobum seen xol anil xaq walis dëgg moo tax dëgg dëgg mbir yaa ngi ci loxo yàlla yàlla nee na bu kaawtee fi ñëwoon bu ngeen bëggee gëm sax yàlla tourné seen xol yi ngeen dellu ci kéeféer waa bu saarahum mu tourné seen i bët yi anib saari xaq du ngeen gis dëgg falaa yu mi du ngeen gëm nag duñ gëm nag yàlla mooy tourné seen xol yi duñ nangu dëgg tourné seen bët yi ba duñ gis dëgg ndax duñ gëm yàlla deful loolu par hasard loolu la def hikmatu gu rëy man ci ngoo xam ne ni aarifuna billaahi xam nañ ko rek laa wax de mi yuminoo comme ni nga xam ne dëggaluñ bi ci moom wala maratin jël benn yoon nañ kawte bu njëkk yi ñëwee ngeen weddi bu dee xoon yàlla li ñëwaat yi ngeen weddee wa nazarum danañu bàyyi leen natrukum danañu bàyyi leen fii dux yaa lim seen ak réer dalaalim seen ak réer yaa moo nañuy deng deng yataraddadoon ñuy deng deng mu taxayirin di gëlëm ci mbiram yonent bi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 buur ne walaw annanaa nazzalnaa ilayhimul malaa'ika laa ji lu ko tax wàcc wàcc na ba nga xamee ne yéeféeri Makka ñu ngi laaj kawteef nee na yàlla wàcc ay malaaka ñu jàkkaarloog moom waaw ñu ne yonent boo ñu gëm la wan ñu malaaka ñu laaj leen léegi léegi daal ñu ne ko andil yàlla bañ gis ko léegi léegi ñu ne ko andil léeg-léeg ñu ko dekkiral suñu maam xusay waaw ñu laaj ko ne wax nga dëggam déet loolu la laaj ak ndanga tëdda te yàlla du ko ñuy waaw naan ko defal naa nga mu di ko def te xóor na de doo xóor na ko ne doogam de bu ne wala ànd naa bu fekkoon ne ñun sax nazal naa wàccee nañu de jëm si ñoom malaayika malaayika yi waaw wa kallama moo wax ak ñoom al mawta waa chef naa ñu dajale alim ci ñoom kulli si lépp lu nekk xibala ñu jël ak moom maakaanoo nekkul lu yoominoo di gëm de yàlla nee na buñ wàcce woon malaaka yi dekkin ñi dee ñu wax ak ñoom dajale leen lépp luñ soxla it gis ko du tax mukk ñu di gëm waaw kon yàlla fekk ci ci kaw def googu ñuy laaj laajam nangate wax nañ ne kawteef su kaw xeet laajee bu ko yàlla wàccee yonent yi buñ bu bu xeet woo gëmul rek yàlla xalak leen te xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jiitu na ci ndogal bi yàlla ne yàlla du leen xalak ba mukk ah mu zakkar naa tudd nañ nag na surata ne saar wii di la naam nazara wàcc na jumlatun waahidatan benn yoon bi makka ci makka wax nañ ne la naam yëpp makka la wàcc benn yoon lu mooy juróom benn laaya ah, su fekkee nag dañ ne laaj gi xibéeri màkke laaj kawteef moo tax laayi yi wàcci su boobaa dafay dàqoonteeg li ñu wax ne danaa moom dafa wàcci noonu rek waa du sabab moo tax mu wàcci loolu lay wax ne wa haza lii na yoo aaridu dafay dàqoonteeg kawn haajil aaya nekk ak bile laaya nazal wàcc na bi sababi qawli kufaari ci sababu wax ak xibéeri bu dee xibéeri wax yàlla bëgg leen a tontu bëgg leen a leeralal su boobaa laa ajuslee wàcc waaye wàcceeb saar lëmbu waaw loolu mënu nekk ah kon nu mu demee lanaam dégg nga xam ne wàcc na benn yoon waaye dafa fekk xebeeri laaj saar bi yëpp wàcc tontaale leen loolu mën naa nekk moom moo tax mu ne awan nal kufaar wala nga ne xebeeri la maxtarahu bañ sàkku haajir ayat yi la aaya nasala ci la wàcc haajir suro bi la saar fiyaa nekk na si haajir ayat yi la jawaaban ngir tontu lu hum leen bañ sàkkoo kawte fii la saar wi wàcc lambaale laay waa ngir tontu leen de amma kaw na ayatin waa nekk ak aaya min hadi surati ci bile saar laa ñeel na ko sababu nuzuulin sababu wàcc xaasin bu jagoo baar ma leer naa gënaa buñ leerlee annahaa ne moom nazaral wàcc na jumlatan waaye tëran benn yoon fa zalika loolu mimmaa yas'ubu mu ngi bokk ci la jëfe na al mufassiri ci taarifkat bi mu ci firikati alquran mu firi ko ne laaya sàngam ci suuratul An'aam sabab sàngam moo loolu du neex a leeral ndax laa yëpp wàcc ndoor la naa moom saar bi yëpp wàcc ndoor kon mën nga wax ne dafa wàcc noonu rek laa wax de waaw nag xew xew xew jamono ba muy wàcc yàlla tontuwaale xew xew boobu si biir saar yi walakin waaye li fi kulli xaalin lu mën a xew daal yàlla boole woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñu koy beccingal waaw di ko ñaawal rek laa wax ñan المستاجون نيرون بيتينغال بالنبي جونت بي صلى الله عليه وسلم بالقران اك القران بري نان واي ني سغنا فيس جوروم لاني ووم نيوم ني سغنا فيس خمسة جوروم لاني كانوا نيكون من قريش قريش ما اسود بن عبد يغوص غاسود بن مطلب اك حارس اك عاص بن وائل اك ابو جهل بن هشام ني نيو جوروم نون يونت يغنا ترتي موم يغيون نياوال ساسو نيكن ñom nak itamo dajaloo nañ ila rasul jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam wa qalu ñu ne bu bëgg ñu gëm la arina laaj ñu al malaikatu yi iza ahbabta bu bëgg nu sadiqa ko ñu dëggal la rek de xam nga ne Abu dafa dëng rek waye gëna gis malaaka nga bëgg naa song yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw gis malaaka wo xamne mën na waaw tàllal nga am kaw ba mu jege asamaan nga am suuf bi dikki waaw moom ca suuf nga xam ne bu ko rek mu na bot waaw ka jug éragi ba mu ko yoreel bot fañ bañ koo fay kenn ñëmul koo fayeku ci Makka ñu ne waa borom bor bi demal ci waa jële di yonantu yonentu dama moom ba xam dana mën ci Abu Jahlin dara mu ñëw wax ko yonentu yonentu dem rek fekk Abu Jahlin ngi dégg nga waaw tëju mu ne ko fayal waa ji borom bi Abu Jahlin ne ko waaw may ma rek dem génne bor bi compte ba mu jox ko fekk boobu mu ngi gis ko yëpp waaw mu ngi gis malaaka maa ngi taxaw ànd ak bi buy bañ mu xalak ko rek laa kon moom bu ne nañ ko woon malaaka xam nga ne dafa dëng rek waaye yàgg naa gis malaaka yàgg naa gis lu ko jommal waaw waqaalu ñu ne arina woon ñu al malaaykata malaayka yi isa ahbabtu boo bëggee nu sadiqa ñu dë nu sadiqa ñu dëggal la fa arina woon ñu al malaaykata malaayka yi ataa nasalum bañ laaj leen waaw mamaratan léegi-léegi xaala ñu ne ko aatina andil ñu billaay ci yàlla xam nga ne yàlla du jëmm mukk ñu ñu andi ci barabaka delloo rek de xataa naraaw bañ gis ko ñu ne wan ñu yàlla bañ gis ko borom xol bu dëng boobu xol bu lan nam boobu nag lay gisee yàlla loolu mënu nekk waaw nas aloo ñu laaj yàlla an sidqiqa ndax wax nga dëggam déet ah yàlla kay wan ne rek ne la yonentu wax na dëgg ci kaw te bi mu wane ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nangu leen koo gis kooku xam nga ne laajam dënga telam umratan léeg-léeg xaalu loo ñu ne ko ah yi dekk la la ñeen ñu xusay bun kilaab waaw jëddanaa suñu maam xata nasaluhu bañ laaj ko alante ndax yow saadixun ku dëgg nga am laa wala déet dégg nga ñu ne ko dekkal suñu maam waaw xusay bun kilaab ñu laaj ko na wax nga dëggam déet rek laa wax de loolu laaj ñu ko ngir bëgg gëm dañ ko laaj ngir dëng ajaaba tontu na laa ko tabaaraka ba wa taala yàlla ne ma lu an na naa bu fekkoon ñun نزلنا واتنا يريم جلسي مع الملائكة الملائكة كما اختاره نكنين كساكو وكلموا موحا يوم الموتى ويدي وتكلموا موحا لهم يلين رموات ويدي كقسي بن كلاب نكو قسي دوم كلاب سن مام وغيرها كدر موم وعشرنا يدجل وجمعنا يدجل عليهم چن كو كل شيء لبن نكو وزدنا منام يدولي على ذلك چدك كلتان يديني waaw la dekkal xusay xataa acharna ba ndajale lahum ñi leen kulla shay'in lépp lu nekk rek luñ soxla ci kaw te yàlla woon leen ko xiwalan ci janoo mu ayen dañ janoo moom fa shahidoo ñu seede ko maa kaanu nekkun li yuminoo di waaji gëm de lépp luñ soxla bu leen ko yàlla defaloon duñ gëm wala waqan bu tàbboon haasa lii kullan lépp lama amanoo duñ gëm li ma sabaqa ngir la jiitu na fenn mi laay ci xam-xam yàlla ndax yàlla xam na ne ñi waruñoo gëm te mënuñoo dégg ndogal bi yàlla topp rek lañ man foofu waa moo tax yàlla doonte leen na ñu ngay laaj kawteef waaye kanaa xamuñ ne kawteef yi gën a màgg bu leen ko wonoo nit waaw du tax ñu gëm ba mukk ndax yàlla dogalul ci ñoom gëm rek laa de illaa li fi nekk laakin li fi ne an yashaa mu soob allaahu yàlla xataa yashaa ba mu soob allaahu yàlla imaan abdin gëm jaam fa yakunu kon dana nekk moom yéen di gëm wa ma lam yasha ku yàlla soobul imaanu ak gëmam fala yuminu du gëm mukk rek laa wax de gëm rek yàlla soob moom gëm waaye képp koo xam ne nii soobul yàlla nga gëm waaw ak loo mën a gis ci kawteef waaw doo mën a gëm de bal mën nga ko bañ a gis sax waaw wala nga gis ko nañ jabar la sa xol di sikk waaye gëm moom doo ko def mukk na yàlla na mu ci yow gëm dégg nga walakin waa waaye la ëpp ci ñoom yajhaluuna dañoo réer ñu ci nit ñi xamuñ ne ndekk ci loxo yàlla la nekk waaw ñu gindee ku xam ñépp xam nañ ne daal ñi ñaari xaaj lañ ñu gëm ak ñu war a weddi waaw ñu baax ñi rek de ñaari façon nit yoo rek a fi nekk xam ñëpp waaw xam nañ ne waaw mashiatullahi muy coowarew yàlla lu mu xas jiitu loolu mënul mooy mukk topp rek la mën a def foofu li yàlla bëgg loolu rek a am waa ñu xam loolu moom xam nañ ne du kawteef mooy tax gëm waaye yàlla rek ay tax a gëm te balaa nit di gëm dafay fekk loolu na yàlla na mu ci moom waa waaye ñi réere yàlla ñoom jàpp nañ ne mbiri sabab yi la moo tax ñu yaakaar ne yenn kawteef yi bu ko nit xanaa dana gëm walaay dañoo xamul ne yàlla yore mbiri moo tax yàlla ne walaakin aksarum waaye ñu ëpp ci ñoom yajharuuna dañoo réer aksaru naas ñu ëpp ci nit ñi laa yàlla moon a ci loolu ne gëm ci coobare beral la lépp nag noonu la mel waaw mooy lañ yàgg di wax rek alquran dafa bëgg nga gëm ne min def yëpp ay xott lañ koy def ci ñoom mooy yàlla loxoob kat ndab yàlla rek mooy doxal bi loolu daal la yàlla bëgg nga gëm alquran dafay di jëme ci jege yàlla dafay woote jëme ci saxal mbir yàlla waaw bañ yëg sa bopp de alimaanu gëm bi machiatillahi si joobe yàlla rek la nekk tabaraka barni wa يلا يلا دوغل تنينا كنغم وفالآية كاوتي وين عظم الدين مغنا لا تعمل دي عن نيت مكو على الإيمان جيغم يلا إلا بمشيئة الله لمن شبر على تبارك بني وتعالى كان كاوتي في نمري ري دو تحنيت كيغم بانو تك شبر يلا دخ أعظم آية كاوتي في جينا مغي يوم يوم القيامة مي بسبنشي وقد تقدم تجيتنا يلا نوى وردوه لا عدو لما نوى إنهم وإنهم لكاذبون wala ruddoo buñ leen delloon gannaaw laadoo danañ dellu limaanu anu te nañ leen tere way ñoom naka ñoom wax gi giñ wax ne buñ leen delloo àddina danañ jub la kaasiboona way nar lañ ma ne yàlla nee na waa ñi nga xam ne dee nañ ñu suul leen ci bàmmeel mos nañ waxtanu dee janoon nañu àllaaxira bañ duggee ci bàmmeel gis nañ kawteefu yàlla yi gis nañ malaaka yi munkar ak nakiir yëg nañ mbugalam bàmmeel réccu nañ anam lu taxoon ñu dëng ci àdduna dekkal nañ leen tiitaangeeg bis penc janoon nañ ak moom mbir mi raglu lool ci ñoom waaw dem nañ janoog xisaab waaw taxawaay ak bis penc nu mu métti métti yëg nañ ko dem nañ ba janoog safaram waaw yëg mbugalam yàlla loolu lépp xam nga ne ku ko gis buñ leen andiwaatoon ci àdduna nga war a jub waaye yàlla ne bañ gisee loolu lépp tamit du tee buñ leen delloowaatoon ci àdduna ñu delluwaat seen dëng ga ndax ndogalam yàlla ba jiitu na ci bu yàgg rek laa wax de maanaam li ma la wax rek mooy mbir mi la nga romb rek boo ñëwaatee ci ngay delluwaat waa ndax loolu la yàlla na mucc yow rek laa wax de buñ leen andiwaat woon ci àdduna duñ def lu may delloo kaset bi gannaaw kaset boo ko delloo gannaaw la nga seetaan rek ngay seetaan fan jaaroon rek la ñuy jaaraat nag waaw ko yàlla leeral xolam moo gën a mën a dégg rek laa rek kon sabaqa jiit na fi azali ca coy ana laa na yàlla racha na rachan ak wis min noorin ci leer ala arwaahin ci ruux yi loolu la yonent wax ne yàlla ba bindee waa bindee fii dañoo des ci lëndëm mooy ñàkk rek de yàlla wis leen leer ci leeram yi ku leer googu jot kookoy ki gëm yàlla rek laa wax ku jotu leer googu kooku mooy ki réer kon waaw jub bi fenn na ndogal yàlla wéy na ñu war a jub jub nañ waa balaa dara di xew leer googu nag yàlla wis roxo gum tàbbi bu ñëwee ci xaalamul xissi si jamono ko yëg foo mu gëm yàlla waaw roxo goo xam ne jotul ca leer googu mënoo fexe fexe ba mu yàlla rek de kon képp koo xam ne leer gi jot na ko foo laay ko ñooñu la gaay laa bu du mën a ñàkk loom ñeel mi ne imaane ci gëm yàlla wa man axtawoo ka mooy na ko daalika rachu boobee wis laa taxtaa du jàpp ne mukkan yu mi mu gëm yàlla wis googu yàlla wis ci roxo yi ku ca kooku du mën a gëm yàlla rek daa wax de dégg weddi yàlla wal ayaatu kawteef yi laa tan du jëriñ mukk ilaa al hidaayati lu ma ñu jug wa tawfiq ak yàlla may sans de dégg nga kullu moojisin bépp kawteef li nabi ñel na wa kullu karamatin bépp waliyu li wali ñel waliyu sawaan moo xam kaana nekk na almiyatan di këju xam-xam aw xeyraha wala lu këju xam-xam fahiya kawteef googu tarbiyatun ak yar rek la li ali zamani ñeel ñoon jamono yi kaw préparé pour yaru nag ko yàlla pare pour mu yaru kooku rek moo mën a yaroo ci kawteef yooyu waaye ku yàlla na mun mu yaru moom kawteef du ko dara fa man kaana ku nekk mustahid mustahaddan di kuñ préparé ngir mu jege yàlla kooku yitarabba dana yaru biaxoon incha allah dina si njëlbéen ak junj waaye tafamu dana jëriñu kooku moom lu ndaw rek ci lay gindee koo daal di jëriñu rek tegu ci siraatal mustaqima ba mu lam yokkun waaye koo xam ne nekkul fii ci moom istidaad ak préparé yaqul dafay wax naan law raayna buñ gisoon mursidan aji gindi xaqan dëgg la te masak naa kon koy ñu jàpp bi zeydihi ca mbiccam ma maanaam ci yoon wa wala taalaq naa danañ aju bii ci moom walan tafa naa kon danañ jëriñu wala sarak naa ñu soowu ku narutu jub moom foo ko fekk si mbébét rek lay dëkk gis wala yàlla yi gis ñu ko mën a génn gis ñu ko mën a teg siraatal mustaqim mu romb leen fa te naan bu ma gisoon aji gindi waa danaa jàpp ji moom tegu siraatal mustaqim waaye ñu nekk si jamono yi duñ tuus mukk laa na yàlla du andi jamono joo xam ni ñu baax ñu nekkuñ fa rek laa wax de xanaa kay gumba rek de wala li nga xam ne ki nga xam ne wa faqoo dëpp na ko jubal laa وقابل الروم جنو ممينا آيات الله ينبل لها تبارك برني وتعالى كونا يجيرنا نفيك المرشد أجي جبل أجي أقرب ميغنا جهي لي جمس ممينا أن يطلبه موساكوكو كوي الله جند قلم مون هم سرين دفكو يومبو وبلا موساكو سرين سنكس كومات و فليازالي موتاق أخبر قبارنا تبارك برني وتعالى كونا أن الإيمان نجم يالا بالمشيات مرشد وبرياله ليس نقول بالآيات نكجي كهوتي فيه fala xayaatu kawte bi zahiratun aji feeñ la ci janoo kawte bi kay ñëpp gis nañ ko kawnu bi rek ku ji xiraat waaw loolu war laa doy kawteef waaw walakin waaye laa yaraa du ko gis-gis a xol ilal mu woo lu ma ñuñ dëppalan jub buur ne wa kazalika naka noonu jaal naa def nañ di kuli nabi ñeel bépp yonantu addu woon am noonu de kama jaxal naa ni ki ñu defee ha walaay gaañile ah daa ka ñuy sa noon jaxal naa def nañ li kulli nabi ñeel bépp yonentu àdduwoon ak noon yonentu bu yàlla yow mos yónni rek wutal na ko noon rek laa wax de waaw lii bu yàlla mos samp ci kaw suuf moom it wutal na ko noon jaxal def na allah yàlla li Adama ñeel Adama Iblis Iblis Adama Iblis moo di noonam boo jaxal def na li noo ñeel noo kanaan ak kanaan doomam. kanaan doomu nuux la waaye mooy noona bàyyam kooku gën a àgg ko rek laa wax de waaw gën a ñàkk sens wa jaana def na li ibrahima ñeel ibrahima namruud namruud ibrahima yàlla boole koog namruud wa jaana def na li moussa ñeel moussa firawna firawna de yonent yàlla moussa yàlla boole koog firawna wa jaana def na li insa ñeel insa al yahuda yahudi waaw yonent yàlla insa yahudi yaa ko noono waaw ba nasaan rey nañ ko waaye waxuñ dëgg wajaal def na li muhammadin ñeel muhammad aba jaalin abo jaalin wa qawmu ak nitam de mu di waa quraysh yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam abo jaalin waaw ak abu lahab waaw ak kàccooru quraysh yi ñoo ñooy noonam de wa kazalika naka noonu jaala def na moom yàlla li kulli siddiqin ñeel bépp dëgg laa kon moo di bépp waliyu ab noon de waalu majara demit ku baax ku daal yàlla boole la ak noonu rek laa wax moo tax waaw ku bañ noonu rek bul baax soo bëggee baax war ngaa nangum muñ waaw loru noonu war ngaa mën a nangoo muñ ñu di la noonoo de ndax boo buñ la noonu rek baaxagoo kon yonent bu nekk defal nañ ko noonu wali bu nekk defal nañ ko noon nga nekk noonu yooyu lan la mu ne shayaatiinal insi seytaane yaa moom nit lañ. waa wal jinne ak yenn yi jinne lañ maradatul insi moo ñu féttar lu ñu ci nit ñi wal jinne ak jinne seytaane mën naa nekk nit mën naa nekk jinne ndax mooy ku féttarlu rek de seyaatina insi mooy maradatul si ñu féttar lu ñu ci nit ñi wal jinne seytaane jinne yi mooy wa maradatul jinne ñu féttar lu ci jinne yi ñooñu rek ñooy noonu yonent yeeg wali yi de waaye ku nangul yàlla du noonu ab yonantu du benn wali rek de waaw ndax benn wali boo noonu rek bañ nga ñëpp waaye yonantu boo noonu weddi nga yonantu yëpp dana jax-jaxal yu waswisu dana jax-jaxal baadum ñenn ñi ila baadi jëm ci ñenn ñi zuxrufal waaw wayit luñ taarale wax mu waatan luñ taaral min baadiri ci ay naxe de naka lay nit ñu bon ñi ak jinne yi di yàqee deru yonent yeeg wali mooy rafetal ay wax fenti ba mu baax rek ñu rafetal ko di ko wax boo ko gisee foog ne dëgg la fekk ay caaxaan rek laay naxale de waaw kon wax ju ñaaw ak luñ ko rafetal rafetal teg ko ci deru waliyu waaw bu dee bu nga mucc dawal gaaw kooku ab seytaane wax ja dañ koy rafetal moo tax yàlla ne waa yuuxi dana jax-jaxal yi waswisu dana jax-jaxal bandum ñenn ñenn ci ñu bon ñi ilaa bandi jëm ci ñenn zuxrufal xawli luñ taarali wax de caaxaan yuñ taaral xururan yuy naxe moom la ñuy fenti ba mu baax rafetal ko kole ko ba boo ko gisee foog ni dëgg la waa wala wax daal niru lu yenu maana fekk ay nar rek ak waxi ku bëgg a yàq de walaw shaa rabbuka bu sooboon sa borom walaw shaa bu sooboon rabbuka sa borom ma fa'alu duñ ko def al ihaaw jax jaxal googal maskuuru gañ tuddu wax ju ñaaw ju ñuy wax ci dara wal yi wax ju ñaaw ju ñuy def ci dara wal yonent ti bu sooboon yàlla du xam de waaye daal ku yàlla mos a tànn rek danay rafetal wax yoo xam ne ku teewul rek ne dëgg la daal di ko teg sa der rek laa wax de ngir yàq ko bu ne fasarhum bàyyi leen dama bàyyi lal kufaar yi fay doom maa yaftaroon ak la ñuy fent minal kufri ci weddi yàlla rek laa woo xëyri ak dudul weddi yàlla mu di xaste mi maasayena ci la taaral na ko moom seytaane lawum ñeen leen baleen rek seytaane deen taaralal mbon ak wax ju bon ñu di ko wax ci yonent yeegul lii waaw baleen yi nag mooy njëkk yàlla di digle xeex de waaza lii xam la am ri njëkk digle bil xitaali ci xeex moom la yàlla wax ne baleen waaye gannaaw ko moom yenn yi buñ ko defee rek mën ngaa dal seen kaw tilkal adaaw yooyu la noon man faatun njariñ lañu li abdillahi ñeel jaamam yàlla bi allazi bi nga xam ne yaxtaaroo yàlla tànn na ko jaamam yàlla bi yàlla tànn yàlla daf ko wutal noon noonu yooyu nag njariñ rek lañ ko yokku laanum ndax ñoom yusuñu joonoo darañ ko xatal waaw teg koy jafe-jafe waaw ba mujj ñàkk yaakaar ci ci ñoom faya jom dellu ilaa xaaliqi jëm ci boromam wa baari yaga ji yett waaw su ko defee rek fu muy mujj dellu ci yàlla mi nga xam ne moo ko bind waaw moo ko sos fay noo nag moom loolu mu yejit bu amut fil kaw ni ci mbindeef fi man yuusi ku koy lor la maala kon mu jeng ileem jëm ci mbindeef fi bi tam yi ci bindireem de ndax naturel doomu aadama rek boo koy jëriñ dafay jeng jëme ci yow waaw yàlla nag fiir ci xolob waliyu bëggul xol ba jeng lu ci moom rek laa wax moo tax daf koy créé créel waa nit ñi di ko contour di ko lor rek te deful leen dara waaye daal danañ wax ci moom lu ñaaw danañ ko def waaw ngir bu mu jeng jëmee ci ñoom de ngir mu deng jeng jëmee ci boromam su fekkoon ne mbaax dana tax kenn du la lor konoon Moussa du wax ne wa qaala Moussa yaa qawmi lima tu'zuunanii wa qad ta'lamuuna annii rasuulullaahi ilaykum Moussa ne yéen sama nit ana lu tax ngeen di lor te xam ngeen ne yonent bi laa jëm ci yéen loruñ ko lu may rek ngir mu aju ci boromam de wala xtatafu konoon danañ këf shay'an dara min qalbi ci xolam bu fekkee nit ñi loruñ la defuñ la lenn lu ñaaw ba nga jël sa xol wëlbati ko ci ñoom jébbal ko sa borom waaw bu loolu amul rek mën ngaa jeng jëmee ci ñoom waaw wala ko yàlla tabaraka bari wa taala kawana yuhibbu dafa bëgg an yan farida mu wéetoo bil qalbi ci xol bi yàlla moom moom rek waaw moo war a dëkk ci xolab jaam bu ko gëm loolu la bëgg de moo tax jaam bi bu mat a nga xam ne war naa mën a jeng waaw bëgg leneen lu mooy yàlla rek wala mu acc yaakaaram wala xelam ci loolu yàlla daf koy nattoo rek nit ñi waaw dal ci kawam fayda kaana bu nekkee dégg nga jin su ko saw xeet waab naaw jin si ak say doomi xeet wala xaari wak seen mbokk xaw la gën la la wër mu waafiqina di dëppoo laka ñeel la fi kulli maa tuxibu ci lépp loo bëgg laa tara doo gis mbirum ci ñoom illaa maa tuxibu lu mooy nga bëgg naka jekk nit dafay bëgg xeetam bëgg mbokkam bëgg ñu ko jege bu yàlla dogalee nag nga bëgg leen waaw ci cosaan teg si ñu dëppoo ak yow doo gis ci ñoom lu bëgg laa buddu du mën a ñàkkan tamit la nga jàng ilayhim jëm si ñoom de wa yaqusuuna ñu jël xistan cër kabiran bi aji mag min qalbika si xol rek laa wax si sa xol il lam yastawlu ndem notuñ waaw alay ci moom su fekkee nag yàlla dafa def rek nga sopp ay nit naka jekk ñu dina jëriñ waa guddeeg bëccëg amuñ lenn loo xam ni rek def nañ def nañ la ko ci ñaaw suufa dinañ am cër bu rëy waaw ci sa xol rek laa wax wa ida asan jak nem xatal na la addaral lor wa nag min kulli jaanibin ci wàllu gu nekk rajaatu dellu nga ilaa xaalik ka jëm ci aji bind la wa baari ka aji yettala rek fastafi ka mu daal del tànn li naf si lor nga fay janoog su boobaa sa xol moom foo nga aj ko ci yàlla loolu mënu ñàkk ndax moom rek moom nga dese te bu la yàlla tànnee dana la dimbale waaw mu neex ni ñeeg mu naqadi leen de dana mu yëkkati la mu neex leen ak mu naqadi leen waaw su boobaa it danga xam ne lii lépp yàlla rek la waaye du mindee fi de loola waral nitu yàlla nit ku yàlla bëgg tànn ko nit ñi daanañ ko lor sax duñ ko bëgg lor rek laa wax de ndax yàllaay dogal loolu ndax bëggul mu wéedu ci ñoom de moo doon nit waaw dana ko sopp sax lor ko te du ko tey waa du ko mën a jëriñ dara ndax yàlla bëggul mu àcc xolam ci kooku rek laa wax de dégg nga yàlla def ne fa firu ila laay daw leen jëm ci yàlla daw nag ñaar ak koy waral gis loo bëgg wala gis loo ragal yàlla nag soo ko xamagut doo ko mën a bëgg mbëggeel gu toll nii saa su nekk rek ngay góorgóorlu ngir jege ko ndax xamagoo sa borom de waaw kon su boobaa li nga xam rek loolu nga aj sa xol ci moom yàlla soppi loolu rek muy fitna ñeel la waaw mu di àddina li ci biiram su ko defee nga daal di ragal soo ragalee nag da ñàkk pexe ba amut benn pexe rek yàlla rek sës nga wéedu ci moom boo wéedoo ci yàlla yàlla dimbal la na la boom de waa zaati tànn gi xëy moo gën lakk ñeel la mais dunya ci àddina ma fi li nekk ci biir àddina loola waral nag yàlla booleel wëllu yi ay kàccoor yu leen lor dégg nga way tasxaa ak ngir mu jeng ilay jëm ci wax ju bon jooju afidatul lazina xool ñi nga xam ne laa yuminuuna duñ dëggal mukk bi laaxirati ci àlaaxira saa yu kàccoor dajale wax yu bon yu ñaaw sotti ko ci derab wëllu yi wala derab yonantu ñi nga xam ne ni gëmuñ àllaaxira dañuy dëggal loolu daal di ci jeng de kontaan ci lool lool lool yamiluuna danañu jeng ilaa maa yu maw yu jëm ci la la ko taaral ah daaw laay noonu yàlla yi de kon wax ju bon ju jëm ci waliyu bul ko déglu boo ko dégloo rek yàlla nga ñu la de wala yar daw danañ gërëm wax jooju wala yaxtarifoo danañu fàggu yëg te si bu danañ fàggu maa nga xam ne moom ñoom muxtarifuuna way fàggu lañ ko mina zunubi ci bàkkaar fa ñu àq boo ñu mbugal leen alay ci bàkkaar yooyu de saa ñu waxee bon ci nit yàlla yi ñi nga xam ne ñoo koy dëggal ci ko déglu mooy ñu gëmul àlaaxira waaye ñi gëm àlaaxira moom boo waxee lu ñaaw ci nitu yàlla déglu sax duñ ko ko def waaw duñ la déglu duñ la duñ bàyyi xel de waa waaye ñu bon ñi danañ la déglu danañ kontaan ci la nga def rek laa wax de bu ko defee amit bakkaar bu toll ni bakkaar ba aji wax ko de yàlla mbugal leen kon kuy waxlu bon ak kuy jëflu bon ci nitu yàlla yi moo ki ko dëggal gërëm loolu kontaan ci ñoo xem nit dana fent lu bon jëmee ko ci nitab yàlla am ñu taxaw di tàccu rek laa wax de waaw kontaan seen xol sedd waaw ndax noonu lañu wëlli boobu taa amuñ fitu wax lu ñaaw loolu waxal nañ leen ko nag waaw ay nar rek la man a doon de wëlli yàlla daal foo ko fekk mooy koo xam ne fenti ay wax rek ak ay nar waaw jëmee ko ci moom rek nga mën a def ci moom waaw waaye wax dëgg ci moom lu ñaaw loolu mënu nekk rek laa wax de afaab taxi ma nax danaa sàkku afaab taxi ma nax danaa sàkku xeyra laa lu dul yàlla mukk xeyra laa lu de xakka man mu di ajaate xaadiyen di ajaate bayni sama diggante waaw wa bayna kum ak seen diggante dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ne du ma wut mukk kenn kuy àtte sama diggante ak yéen wàcc na ba nga xamee ne dañ na ko nañ dem ci yow yahud yi ak ahlul nga xam ne ñoo jàng téere yi weddi nañ la nañ dem ñu àtte ñu Quraysh ne nañ dem ñu àtte ñu ba xam kat moo nekk ci dëgg ñu nag yow ku nekk ci dëgg yonentu ne wutuma beneen àttekat bu dul yàlla rek laa wax de muy àtte suñu diggante araado bëgg nañ ay ren ba ane yàlla mu ñu def xakaman man wutal ko àttekat baynum seen diggante wa baynoo ak diggante waa yonent bi de wuutu yonent bi laa yëpp du sàkku xakaman benn àttekat xere laay lu may lu dul yàlla yonentu soxluwul benn àttekat lu may de mu ne afat ab taxi man ax danaa sàkku xere laay lu dul mu yaaji sama diggante ak yéen woo moom yàlla lazi mooy ki nga xam ne anzala wàcce na ilaykum jëm ci yéen alkitaaba alquran mu fassalan mu mu muy luñ leeral mu bayanan di luñ leeral fii moom alaq dëgg minal baatili si jaaxaan de yàlla mooy ki nga xam ne nii moo wàccee alquran ci yéen dégg nga alquran moo di téere bi nga xam ne dafay leeral diggante dëgg ak caaxaan yàlla mooy ki nga xam ne ni moo wàccee waaw téere boobu rek laa wax ci yéen de téere boobu kon doy naa tere wala wala dina ñi nga xam ne aatay naam jox nañ leen alkitaaba tawraat ni ko abdullah ibnu salaam waa saabu ak yi waa ay gaayam yàlla moo na danañu xam annoo ne alquran munazalu luñu wàcce la min rabbika tukkee sa borom bilaa xam ne ma ji lam bu dëgg falaa takunanna bu nekk mukk yow yonente bi mina mumtariina ci way sikki ashakina yi ñooy sikki fii ci alquran alquran ñi jàng ñi am tawraat ñi xam tawraat xam nañ ne dëgg la waa yàlla ko wàcc de bul ne bokk mukk ci ñu si rek laa wax